le fait que Bassirou Diomaye fay euh, Faye décider de de de démissionner euh, des instances du du du, du parti euh, euh ne dafay élevé wu et que Ousmane Sonko mi di le président du parti nekk. Hmm. nekk le le le chef du gouvernement. Hmm. est-ce que loolu dina am effet. waaw c'est vrai que relever nga ko bu fekkonte ni Bassirou Diomaye moo nekkoon président PASTEF mu démissionné mën nañu ne. Euh, effectivement mi ngi appliquer l'incompatibilité entre chef de parti et et chef de de de l'État mais ba tey c'est c'est c'est un début du commencement euh, par contre war nañu mën a xuus dem un peu plus loin euh, ça nous amène à parler du cumul cumul fonction wala cumul mandat et d'ailleurs loolu il faut ñu leeral ko bu fekkente ni dañu ne cumul fonction tey jii mën nga jàpp ni Ousmane Sonko premier ministre dafa war a démissionner de euh, de son poste de maire de Ziguinchor bu dee cumul de fonction la ñu wax bu dee nag dañu ne cumul de mandat xëy na du ñàkk mu mën a nekk premier ministre nekk aussi maire de Ziguinchor oh, loolu waaw waaw waaw waaw bu fekkente ni cumul de fonction la xëy na Amadou nañ ñu gën a leeral quoi parce que je sais que ça a fait l'objet d'un débat Euh, l'exemple qu'on peut donner mooy mooy euh, Birame Souleye euh, dépu devenu député alors qu'il était maire d'une des communes d'arrondissement de de de Thiès dafa taxaw ne man du ma du ma bàyyi du ma du du ma kii du ma ba tey il il cumule les deux. donc bu dee cumul baal baal ñu vérifier suñu bopp. waaw a j'ai ici un extrait. waaw où Ousmane Sonko en en en en parle c'est un extrait très court. waaw alors am sama micro sax. faudrait voter une loi à l'Assemblée nationale. laquelle loi interdirait définitivement les cumuls de fonction cet engagement la figurera inch'Allah dans mon programme de 2024. waaw kon nag kon nag kon nag leer na kon nag leer na euh, cumul de fonction la wax tey jii logiquement puisque. premier ministre la dafa war a démissionner donc de son poste de maire de, de Ziguinchor euh, donc pour man euh, il faudra ñu xuus affaire bi dugg ci biir a biir parce que c'est pas seulement Bassirou Diomaye nee na je ne suis plus secrétaire général de PASTEF parce que je veux être au-dessus de la mêlée noonu la ko waxee que ñu war a yemale affaire yi foofu foog ñu dem plus loin et puisque tey jii PASTEF euh, ak coalition bi leen soutenir ils sont au pouvoir pour man vraiment am nañu occasion appliquer euh, tout tous ces engagements yi ñu yi ñu yi ñu waxoon devant le peuple